avec Farah. aywa ñu tàmbali tàggat yaram ak euh, Ligue sénégalaise Ligue 1. waaw Faty nuyuwaat la nuyu mbokku téléspectateurs yi euh, Ligue 1 nag ñu koy tàmbali ak cinquième journée bi euh, match yi nag amal nañ ko di la fàttali ñoom quatorze équipes lañu Douane nag euh, def na lu rëy dafa gañe ki nga xam ne moo nekk jàmbaar leader bi benn bal ci dara Dakar Sacré-Cœur AS ñoom ñoom yu nul zéro bi partout Ndiambour ak euh, Mbour Petite Côte ku ci ne benn dugal US euh, Gorée moo gagné NGB 1 bi à Génération Foot Casa Sport ñoom it bi partout Teungueth FC moom nag euh, moo Jaraaf xam nga Teungueth FC dugg na ci poule Ligue de champions yi Jaraaf mu ngi def dernier match am Jaraaf a ko fekki nag fële ca Teungueth gagné ko ñaari bal ci dara Stade de Mbour Seneps ñoom 0 bi partout la ñu def buñ ñëwee nag ci wàllu classement bi. foofu gis nga nag ki nga xam ne moo nekk jàmbaar moo jiitu malgré sa défaite 10 points la am Tëngéej FC topp ci 10 points naka noonu tamit jaraaf ñëw moom it 10 points ci ndaare bi nag euh, avant ndaare bi US gore la moo jël li nga xam ne moo nekk 13e 4 points ñaari tali nekk ci suuf ak euh, ñetti poñ statistiques yu ñu mën a jàpp nag ci cinquième journée boobu bi yu faible lañ dugal juróom-benn ci ay bii la ñu dugal euh, ñetti victoire ñoo ci am. Euh, benn victoire à l'extérieur moo nekk bu jaraaf bi contre euh, Rufisquois yi Teungueth FC 2 bi à 0 quatre matchs nuls dont 3 0 3 bi partout ak benn 1 bi ñoom ñoo fa am 1 euh, kon loolu moo nekk statistique ci wàllu Ligue 1 bi Ligue 2 bi tamit amal nañu ñoom it euh, ay jongante mun nañu ñëw ci résultat yi euh, amitié fc moo gañee africa promo foot 1 bi à 0 jamono bu fatick kër maajoor ko fekk gañe ko benn ci dara euh, demba diop gagné ju fatick 2 bi à 0 renaissance 2 kii di thiès fc moom benn la am Sonacos moo gagné Port 2 buts à 1 Guédiawaye FC ak Duc 1 bi partout Linguère ak ki nga xam ne moo nekk US Ouakam Linguère moo gagné 1 bi à 0 yaakaar naa ne malgré Covid bi ak huis clos bi championnat bu Sénégal tant bien que mal ñu ngi jéem a wéyal di jouer def seen i jongante match euh, euh, ci semaine bi nag diggante Tëngéej la woon ak Jaraaf waaye Jaraaf moom mujj gagné 2 bi à 0. ngay am waaye mos jaaxal mooy <laughs> bi mooy ñaata cinquième journée. ba léegi dégguñ benn kaa <laughs> ci équipe yi. <laughs> cas Covid. non non non non protocole bi test bokku ci. Ah, loolu loolu moo ci xawoon doy waar parce que dañu waxoon ni. Euh, ils font su su ñuy def test day fekk euh, dañoo gis jour bu développé symptôme mhm. wala peut-être dirigeant wala loolu te xam naa ni euh, Covid bi ak. ni muy jëflanteeg euh, sportif yi ak xale yi jafe na nga gis si ku ko ci am. am mm-hmm. nga <laughs> développé seen taw. staff yi aussi tamit ñu ngi joué bien seen ndax euh, boo seetee équipe yu ci bëri avant ñuy dem da ngay gis ne ñu ngi désinfecté euh, ñii di équipe beeg lépp ah. même boo demee seen séance d' entraînement yi tamit da nga fay fekk dispositif bi foofu. Mm-hmm. donc loolu tamit ça ça encourage même si cinquième journée bi gis nañ ni attaque bi tamit faible na trop. par rapport ak quatrième journée bi ñu gis ne am nañ 17 bi bi tamit euh, ñu gis ne Pafara léegi nee na 6 bi kon euh, défense bi moo defar je ah, pense ah, bien non mais championnat Sénégal voilà. loolu lañ ko mos a xamee mm-hmm. souvent les mm-hmm. attaques prennent le dessus sur la défense. Mm-hmm. mais bon yi passé je pense que amoon nañu 20 buts et oh, quelques sax. mais bon quand même c'est c'est c'est des matchs disputés il faut le dire. te en plus da ngay gis ay équipe yoo xamee ni dañuy nërmelu ba nga yaakaar ni ñi ngi ñu ay jafe-jafe comme Jaraaf Jaraaf match bi passé 4. je pense dañ ko dóor dañ ko dóor match bi mu ñëw euh, choc au sommet euh, face euh, au champion dañ ko jàppee noonu Tëngéej mhm. fekki ko dóor ko deux 0 même c'est une bonne performance à saluer surtout dans l'optique du tour cadrage mhm. match barrage bi ñu war a jouer ak mhm. tanzanien yi c'est de bon augure ñu yaakaar ni rek ni dinañu ko def comme ça Sénégal mën am ñaari club ñu bokk ci phase de poule. <laughs> l'espère. ok alors euh, la per bon on y va pour les performances des Sénégalais. waaw xanaa ñëw rek ci bii bu rëy bi nga xam ne Pape Matar Sarr moom moo ko dugal moom ak Pape Ndiaga yàdd yëpp dugal nañu euh, ci matchu Metz bi contre Brest euh, Pape Matar mu ngi dugal bii bu am solo ñu delloo ko mu daal di ñëw nag daal di def tir bu rëy mu ngi noonu daanaka bii mooy deuxième. titularisation ci jongante yi moom nag mu daal di wane boppam Ndiaga Yade tamit moom dugal na ci boppam di day wane euh, que championnat Sénégal mhm. quand même euh, am na niveau parce que jour bi daaw ah, championnat bi la nekkoon des anciens ci championnat bi la nekkoon di jouer mhm. euh, tey jii mi ngi Ligue 1. waay c'est c'est très difficile nga gis ku jóge ci championnat Sénégal dem directement. Mhm. Ligue 1 titulaire. parce que souvent dañ lay faral di aale nga dem deuxième division tout ça mais moom bon quand même euh, c'est on c'est il est présenté comme futur euh, très grand footballeur. Mhm. Euh, quand même on espère dina. te lii mu def continuer quand même on espère rek dina gën a. évoluer parce que Metz tamit xam naa sax looloo tax ñu koy mettre dans le bain muy gën football. parce que mm-hmm. dafa nekk joueur boo xamee ni équipe yu mag yi. dañ ko teel teg bët depuis bi mu nekkee fii ay Barcelone Manchester City yooyu yëpp dañ ko commencé woon topp. parce que quand xam nañ ni ab pépite lañ yor. kon ñu koy ñaanal mu wéyal ak noonu Pape Ndiaga Yade Abdoulaye Sima. ñu ngi ko def Abdallah Sima di moins ba Slavia Prague moom it dugal na dixième buyam euh, moom tamit ñu ngi koy topp di ko xool te c'est un jeune sénégalais mais mu ngi wone boppam presque daanaka chaque week-end moom mu daal di dugal bi moom tamit ñu ngi koy bàyyi xel bu baax. Mhm. Euh, mbay Diagne tamit dem na West Bromwich Albion. moom it ñëw na waaye def na match bu am solo dafa dugg daal di def passe décisive ñu daal di match nul de bi partout. Ah, ñoom ak seen jogante ah yoratul maillot bi yoratul maillot. <laughs> ah bon ay Galatasaray. <laughs> Galatasaray Mbaye Ndiaye na club xam naa dinañ ci dellusiwaat am mayom bu. bees bi ñu réactualiser les images quoi. <laughs> waaw loolu nekk na lu am solo naka noonu tamit Krépin Diatta moom mu ngi dem fële nga xam ne moom moo nekk Monaco moom tamit tuuti leer na. Mm-hmm. ni ki démb te gis nañ Monaco ba léegi mu ngi yéeg moom moo gagné. du Bizarin kon Crépin ñëw na ci club boo xam ne tamit mu ngi titulaire di wane boppam ñu koy ñaanal rek euh, lim ci dem wut mu daal di koy am continuer ko. très bien euh, dafa mel ni Amath dellusiwaat na Ahmed Amath ñëwaat na ci place am ci présidence bu CAF. waaw gisoon nañ quand même ne que son directeur moo doon assurer l'intérim. waaw Constant Omari moo fa nekkoon waaye moom dafa déposé woon recours ci euh, TAS moo nekk tribunal arbitral du sport gannaaw ba xam ne nag gars yi amoon nañu tegoon ci kawam ba jëlee ko fa. Mhm. mais nag ajandi daan yi xam nañ ko teg kon nag euh, dañ koy dellowaat lii di place am. bu mhm. ñëwee nag daan nay remercier bu baax a baax kee ko remplacé woon ndax teg nañu chan bi ak yeneen yi nga xam ne yëpp defaloon nañ ko nee na moom dina ñëw daal di wéyal li nu mel nag continuer ndax candidature da koy maintenir wala déet affaire yi fi mu ne jaxasoo na ndax gisoon nga ñoom Augustin Senghor ak euh, ki nga xam ne moo nekk Jacques Anouma ñoom ñaar rek lañ validé woon daal di aj Ahmed Yaya ak Motsepe mais nag waa FIFA delloosiwaat nañu ñële dugalaat leen affaire yi daal fi mu ne jaxasoo na Amad Amad bokkul woon te léegi est-ce que day. candidature am day maintenir wala déet. <laughs> mais film la affaire bi la feuilleton feuilleton bu bëri ay épisode <laughs> chaque chaque jour nga gis euh, épisode bu bees euh, mais bon moom tamit amoon na recours boobu xam nga ne tas moom souvent euh, day faral di désavouer FIFA ci yenn décision instant bi fi ñu toll nii remettre na ko en selle mais affaire yi jeexagul je pense que le 2 mars tamit euh, boobu xam naa moo war a nekk euh, décision bu mujj bi mais euh, à l'heure où nous parlons il est éligible pour nekk pour pour xawma <laughs> participer à sa propre <laughs> succession xawma en tout cas bon li ci doy wax nag mooy ñu Augustin dafa waxoon ne Amath su présenté moom du présenté wu ah. bon loolu amaan nag amee problème yi ñu gis ko mu déposé candidature am ba gars yi di wax sax am sax ñu naan. mooy euh, candidature amaat moom mooy plan B bi. Mhm. bon là on est parti ci scénario boo xam ni ñoom ñaar. xam na nu muy demee <laughs> ñu daje fa nekk candidat on sait pas euh, nu muy mujjee duggam bi tamit kenn xamul Euh, ban impact lay am ci candidature yeneen yëpp affaire yi daal euh, takk na suuf euh, jaxasoo na lool lool mais bon <laughs> quand même avec problème yi mu am yëpp tamit. on verra si moom déjà sa gestion elle est décrite ah. dem si yàlla ndeysaan Pape Diouf yàlla na ko yàlla yërëm yàgg naa en cause les compétences de Amad Mit. il il l' a prouvé boo xoolee bi mu ñëwee on a beaucoup d' espoir parce que Issa Ayatou def na fi presque 30 yàgg fi. moom mu ñëw à surprise générale déjà ñëw. ñu jox ko président SCAF bi mais benn mandat la def doo ko gën a garaaw mooy ingérence bi ñuy wax mooy xam nga mooy Afrique

xamante ni moom lañu war a diriger beneen bi mooy je pense que est-ce que ki nga xamante ni mooy sous-région bi ngeen gisee Cameroun bi ba léegi moom it euh, gis naa ñu a Augustin nee en cas de deuxième tour est-ce loolu aussi du nekk loo xamante ni day handicapé Camerounais j'ai pas compris non Mauritanie ah, seen seen bu dee am nañ Mauritanie candidat Côte d'Ivoire am candidat Sénégal ak UEFA euh, bi est-ce que loolu aussi du du nekk loo xamante ah, ne bon kay dafa lu éparpillé la mooy comme ni ñu ko waxee rek euh, les forces sont éparpillées gars yi ñi ngi doon yaakaar ñi ngi doon dox Euh, diplomatie mi ngi doon dox pour xool nu ñuy def ba am candidature unique euh, Afrique de l'Ouest mais bon loolu moom je pense pas que fi ñu toll nii dina mën a nekk mais bon euh, je pense que foofu foofu moom mooy c'est moins grave su amaat dugg duggaatee ci course bi parce que mm. amaat su duggaatee ci course bi day jaxase lu bari mm. te moo fa nekk actuellement te mm. lui avant ñu koy teg daan yi annoncé woon na benn nombre de soutien boo xamee ni <laughs> fekkee loolu mu ngi ci ginnaawam ba léegi quand même euh, ça va être extrêmement difficile ñu daan ko bon mais on va voir quand même euh, est-ce qu'il sera déjà candidat définitivement ou pas mm. su ko nekkul nag euh, on on verra tamit xool africain yi peut-être suñu demee deuxième tour des mm-hmm. candidats de l'Afrique de l'Ouest de l'Afrique du Nord mën nañu joxante mm-hmm. ñu jàpp parce que Maroc nga xam ne ñoo tamit dañoo am doole. ñu ngi mm. gis nit ci ginnaaw mauritanien bi. Mm-hmm. Euh, la ñoo xaw a nekk. tout cela daal jaxasoo na jaxasoo boo xam ne daal mën nañu feuilleton la boo xamee ni daal fin bi moom kenn mënu ko imaginer. très bien alors euh, à ñu bàyyi nga toppal ñu ko mais rapidement comme waxtu yi jot na ma bàyyi la rek nga tënkal ñu li des muy CHAN euh, ak bu Messi mais en une minute ah. waaw CHAN 2020 euh, bi xam nañu affiche su demi-finale yi foofu nag diggante Mali ak Guinée lay doon ndax nag Guinée ñoom ñoo gagné woon Rwanda yi 1 bi à 0. Euh, naka noonu Mali gagné Congo euh, ci teg dóor yi Maroc gagné Zambie 3 buts à 1 te Maroc nag moo jëloon euh, championnat bi passé Cameroun di pays hôte bi moo gagné RDC comme nag fair play laay dawal. Mhm. wan la biiw Lionel Messi bi nga xam ne moom. dafa yaaññi nag dafa yaaññi contre Athletic Bilbao. <laughs> Messi alors ñu ñu jeexal rapidement basketball. waaw national 1 masculin quatrième journée maanaam ci góor ñi Iseg Sport Louga. Louga moo ko fekk gagné ko 63 a 50. Saint-Louis basket club UGB moom nag 56 à 69 ISO 60 la am Sibac 50. AS Thiès ak ay US Rail euh, derby cheminot yi la 68 mm. à euh, bopp nag moo gagné waaye foofu nag US Rail moo gagné 68 mm-hmm. bopp moo AS Ville de Dakar moo ko gagné 66 à ak Duc Duc moo ko gagné 89 Douane moo am lii di 88 GA 64 Mermoz moo gagné Euh, ASFA 71 euh, à 41 ci jigéen ñi. Mhm. ñoom tamit joué nañu seen euh, quatrième journée Saint-Louis basket club. ISEC Sport Saint-Louis moo ko gañ 58 49 U4 BC ak kii di ASFO 36 à 61 la Mbour basket club ak CMT équipe bu Ziguinchor la moo ko CMT nag moo ko gañ 60 à 38 AS Ville de Dakar. Gagné débloque 61 à 45 Saltigué 30 la am Gia 51 Jaraaf 42 Duc 69 Fatick looloo gënoon fës ci xibaar tàggat yi. la club basket. club basket club basket. université. université Duc nag ak Duc. waaw fa nekk. sérieux quand même. danoo bëri problème ñoom seen i biir. ñaara fa nekk li mooy lay sport Sénégal. parce que dégg nga li nga wax ni c'est très sérieux parce que université xool ni mu ndawee mënoo fa am ñaari club basket bu ñu bëggee di suñ suñ mm. sport di dox aussi il faut gars yi di li ñu wax ci parti politique ni mu bëree les clubs ak nawetaan yi yi di ànd aussi mbooloo mooy doole de ko wolof di waxee doon benn sa yàlla c'est vrai mhm. <laughs> merci beaucoup jërëjëf Pafara euh, xam naa rendez-vous insha allah lundi prochain parce que Alassane mu ngi xaar ci wet gi euh, sañse bi rafet na élément yi itam am na solo bi Messi bi tamit <laughs> xam naa Cheikh kontaan na merci beaucoup jërëjëf Pape Kharagne ñu dem léegi ci écho de la